revue de presse ñu ànd seek Mantoulaye Thioub Ndoye dikkati naa kutéetuli tiit jot na de libération yéene kaay ne ma jamono ji ci réewum Sénégal ci lal yi ak ci hôpitaux yi lu toll ci fukki junni nit ak juróom ñi ngi tëdd te dara tëral leen ak lu dul wopp coronavirus yéene kaay bi ne ma coronavirus mi ngi faagaagal askan bi mu mel ni dañu ne pacte rek ma ne ko moo li mu ñi nga xam ne demuñu hôpital testé wuñ leen lu ci mën ci am daal yéene kaay bi ne ma de manière officielle li ma ci xam mooy fukki junni nit ak juróom jamono ji nii tembe tembe ñoo am wopp coronavirus di ci réewum Sénégal docteur Alioune Badara Ly directeur bu Kuzney lañ doon am ci kaa dafa yokk nag ci juróom-ñeent waaye ñii faatu yi daal nañu yokk bu baax a baax ndax juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent faatu nan ayu bés bee ñu génn maanaam téeméer bu manqué benn Afrique gii faatu gaa fi mel ni tulleeg Mali juróom benn junni doomu aadama ak ñeenti téeméer faatu nan ci benn ayu bés ci dénduk Afrique la ci ëpp bàyyeekoo ci Afrique du ak ci Tunisie Le Soleil yéene kaay na déet ci junni kay ak juróom fukk fanweer ci ay kaa la ñu daal di bàyyeekoo ci teeree nag ci fukki junni ak juróom-ñaar ci kaa yu toftal juróom-ñeenti téeméer juróom-ñett fukk ak ñaar faatu gi moom téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom-ñett daal dina ci yokk Abdoulaye Diouf Sarr ne moonte noppewu ñu benn yoon de Le Soleil yéen kaay de la santé na fu ñu toll ña nga doon wax moo tax it diggante juin ak juillet différence bi bari na lool waaye nguur gaa ngi def kémtalaay kattanam ak fan weer ak juróom ci centrale d'oxygène yoo xam ni commandé nañu leen su aanee lii day daanaka ab gént lay daal di nurool gént gu naqari nag goo xam ne nii ga day daal di diis lool vox populi ne ma ne la jamono ji tolluwaay coronavirus ci réewum Sénégal boo koy xalaat sax da ngay tiit boo ñu la koy wax sax da ngay ragal ñu dañ lay tiital ndax situation bi doy na waar ba jéggi dayoo ñoom ñi faj jamono ji war ñoo faj ci coronavirus ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk juróom-ñaar ci ñoom ñi ngi tëdd ci woppu coronavirus vox populi moo ko xamle docteur Alioune Badara Ly directeur bu kuus ne doy na waar te mi faaw ñu xam ne situation bi doy na waar rawatina fii ci Ndakaaru ni mu doyee waar ëpp nam tool la ca moom moo di wax si new lii moo ñu dese ngir mën caamu mucc critique yéene kaay ne moo tax it ministère de la santé de l' action sociale daal ñu nga jël seen yaakaar gépp daal di koy def ci vaccin yi te ñi nga xam ne dañoo wopp docteur Marie Xemes Ngom nee leen dem leen faju ji le quotidien le quotidien ne waay waay li yëpp nañ ko waxta dee dara yóbbewuñ ko lu dul tabaski tabaski beek dem ak dikk yi mel ni tulleeg maale moo nu jural kaa yi nga xam ne doy na waar lool bari lool faatu gi sakkan lool le mandat ne Abdoulaye Diouf Sarr day waxtu woowu moom ministre bi ma ngay daal di xupp nee na nag ñay joxe ay xibaar te wérul ñi defi fake news ma ngi leen di xupp deful daañu dal ci seenu kaw critique yéen a kaay ne moo ne day docteur Raoul mi nga xam ne daanaka kenn mënu ko ci coronavirus bi mi ngi xam le ni vapeur boobee nga xam ne dañ ko doon faroot ko a kaay ba tey fukki milliards ci suñuy koppar la ñu a def ngir jënd ay tenues scolaires ci réew mi aane ma may ma ñëw réew mi it la Ousmane Sonko défier nag loi bu yees ci manifestation bi gannaaw ba mu wootee ñi nga xam ne dañoo bëgg bindu te mënuñoo bindu ñu daal di manifester vox populi ne ma kaay Ousmane Sonko kay la ko naqari moom moo di élection yoo xam ne dañ ko bëgg tëgg fii ci réewum Sénégal di élection locale te dañ koo bëgg nag préfabriqué xool ña cay dem ak ña ca dul dem élection yoo xam ne dañoo bëgg am résultat yi laataa ñuy àgg cooy la élection Ousmane Sonko ne loole du fi amee tey du fi amee ëllëg ndax nag président de la république Macky Sall ci élection locale yii la bëgg na tee boppam def ay primaire nag ngir jëm présidentielle ba quotidien ne Ousmane Sonko kay nee na carte électeur ñi ngi koy bëgg xañ ay primo votant te loolu du fi amee moo tax it moom njiital Pastef daal dinay wax xale yi ci l'info yéene kaay ne détermination ba nekkoon seenu xol ca weeru leen ko jaay leen seenu bakkan bu ko jaree dem leen ngeen rangi waaye jot leen ci seen carte d'identité ngir mën a wote ji fi mu toll nii nag bëgg nañ ñoo jaay doole ndax nag am nañu ay xibaar yu ñuy wax ne téeméer boo jël ci sénégalais yi juróom-ñett fukk yi wan nañ ginnaaw Macky Sall ca waxtu woowu Papa Alé Gueye ci libération yéene kaay na ko ak PUDC xam yoo xam ni jaar na yoon dañoo mobiliser ay financement ñu jébbal leen marché ya gannaaw bañ ko gañee lu toll ci téeméer ak fukki prestataire sénégalais daal dinañuy ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu fas yéene may courant ñaari téeméeri localité yu nekk ci réewum Sénégal élection fédération sénégalaise bu football tey la diggante Madi Touré ak Augustin Senghor kan moo cay am ndam Vox Populi moo ci samp laaj de laas yéene kaay ne ma Abdoulaye Seydou Sow day moom am na ndam niki démb daal dinañ koy tabaat ngir ñetteelu mandaam ci ligue bu football amateur ci réewum Sénégal critique yéene kaay ne ma moom kay Abdoulaye Seydou Sow daanaka dafa daal di écraser Ousmane Yan Thiam dóor yaa metti daal cey réew mi réew mi fi la Serigne Fallou Mbacke mu tedd ma tëdd juróom fukki at ak ñett mu am ko ci suuf ni ki démb moom ñaareelu xalif sëñ Bamba bi moom mi jaayoon njuréelam doonub taalibe bëri na ci ñu mu ñàkk jamono jii libération yéene kaay kaay ma xamal la ni Amidou Sidibé Awa Sow tëj nañ leen ngir faatug bakkan bu Lawbe Njaay chauffeur ba di dàq sumaare contrôle judiciaire la nekk laas yéene kaay ne ma sëriñ si ak maamadi ñi ngi toj dëkk bi abbé Alphonse nduur ne ma ne la réew mii dañuy jaawaale ndax mënoo jaamu yàlla nag di jaamu seytaan ca waxtu woowu imaam Kanté ne Sénégal daal képp kuy féticheur jamono ji fii nga daw wut si ndax fii la client